ñu dale ko ci weeru muharram muy juróom-ñetti weer ci ñu tàmbali bu dal di bàyyi ko daaru ba mu dëkkee woon rafaatal ko maam Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñaata taalibe ñoo jébbalu fii juróom ñeent mu ne ko boole ci sa bopp mu ne ko téeméer la kon mu ne ko téeméer boobu ak. am na joxe daaru salaam Cheikh Anta. dal di ànd nag fukki nit ak juróom benn yooyu fukki nit ak juróom la bi ci Seex Ibra bokkee ndax ci lay daal di ton mu sànc ko sañ naa lim fukki nit yi ak juróom benn waaye moom deful nit nit moo tax kenn nekk tey fii jumaa ji nekk foofu la defoon këram juróom ñeent moo nekkoon longueur bi moom la kër gi guddee juróom benn fukki meetar moom la kër gi yaatoo moo doonoon la réserve bi nii la mat nattu ba mu yegse nag daal ci jël dëkk bi xaaj ko ñeenti xaaj ñeenti xaaj la xaaj Touba yi mooy mbooloo mi mu fukk yi ak juróom benn nit mu def leen yooyu mu jël fukk yi ak juróom benn xaaj ci def ci génn ci ñeenti jëwriñ sëriñ Massamba Diop Sam ci la bokk Cheikh Abdourahmane mu daal sanc bi daal di dëkke dëkkee nag moom ci wàllu boppam fii jumaay Tuubaa nekk mu nekk ci digg dëkk bi jëwriñ yi fu ne wër moo tax may wax ne mbir mu amul jëwriñ doxul Serigne Touba mbiram yëpp ci jëwriñ yi la ko tegoon hmm? moo tax liggéey bi liggéey bi yëpp ci jëwriñ yi lañ bëgg ñu dox ci faw jëwriñ lu am solo la ci liggéey mu daal di nag ànd ak ñeenti daaraam yooyu ci diggante boobu ak fukki nit yeeg juróom-benn yooyu la toogee ci tubaab gii ak ñeenti ñooñu nag daal di koy def ay daaray tarbiyaam di fa tarbiya nit ñi ci seen wàllu yàlla ak seen wàllu yoonu murit tey jii bu ñu seetee ñeenti gox yooyu ak tubaa dëkkam bii fii jumaa ji nekk mooy xolub Sénégal tey jii te nga gis ne bi mu fiy ñëw dafay fukki nit ak juróom-benn képp ginnaaw bi nga xam ne nag xista yu bari dikk na ci ay borom yi waxtaan yu ci ñëw yëpp waaye dinaa ko leeral liñ sama bopp ba mu gën a yaatu bi nga xam ne ci la Serigne Bara moom Serigne subaa gane àddina nag. ci bi nag daal di woo ñeenti jëwriñ yooyu yeewi leen ak xisse ya ca xew ak la ca xew yépp dinaa ku ñëwaat wesaare ko ba mu gën a leer ci la leen yeewi ba mu yéen yeewee ñeenti jëwriñ yooyu nag ci la daal di sancaat nag yeneen i ci biir dëkk bi lu demee ni daaru xuddoos ak daaru minnan daaru minnan bii sëñ Basiru nekk ak daaru xuddoos ak sëñ Modou Moussa ci la leen daal di sancaat ci dëkk bi nga xam ne daaru xuddoos fa la daan xëy di fa yendu fa ba julli tisbaar bu jullee tisbaar ba noppi nag daal di dikk daaru minam bu dikkee daaru minam nag fa lay nekk di fa nekk ba ker gi sedd ginnaaw boo xam ne ker gi sedd na ba timis jàll ca lay daal di dikk nag ci këram gu mag gii fii jumaa jii nekk tey ñu tuddee ko Touba mosquée fa la daan dikk nag daal di eggalee foofu guddi gi nii la Serigne Touba daan doxalee ci dëkk bi da daan xëy yendu daaru Xuddoos fa lay nekk ba julli tisbaar yàllu daaru minnam ba ker sedd bu ker sedd ba timis dugg mu ñëw fii ci jumaa ji nii la sëriñ bi daan dox nga xam ne loolu ab julli la tey jii bu ba tey jii bi mu demee ba liggéeyam bi daje fi mu jaar ci àddina ba dellu siit gis ngeen nekkoon kon fii la mujjaat ñëw dëkk si ci barabam bii bi ker seddee dëkk bi nag keroog bi mu ko sancee dafa toogal ak mbooloo ma ñuy ñëw mu ne mbooloom ma de war ngeen a sant seen boroom ndax li tax ngeen war a sant yàlla de ndax yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam ba mu nekkee ca Makka. di ko sanc dafa am lu mu ñaanoon boroomam ca sanc ba rabbana inni askuntu min zuriyati bi waadin xayri zi sarxi xindaka baytika almuharami rabbana li yuqimu salaata foofu waajan afyaadan min annaasi taxwihum mu wa ilayhi warzuqu min asamarati laxalakum yaskuruna mu ne yow sama borom day man day sanc ci naa man ibrahima fii nga xam ne fii la sa kaaba gi nekk maag sama njaboot te fii nag amul gàncax amul mbay amutug tug jur amul dara kon nag na nga ma fi wërsëgal yooyu yépp nga xam ne ñàkk na fi ba ma mën laa jaamu am kàttanu nag di sant sunu borom dal di nangu ñaanu Ibrahima ba tey ku ne xam na ne màkka xéewal googu nga fa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nag ne leen mayit yàlla sama boroom nangu na sama ñaan noonu mu nangule woon Ibrahima ci sama dëkk bii di Touba ni noonu nga xam ne moom lañu defal Makka lépp loo xam ne am na màkka nee na lépp it am na tuubaa nee na wutaliwuñ ko ay morom waaye nee na lépp loo xam ne day dox mu ne day am ak wujj mu ne te wujj wu nekk di nga am ak kay mu ne màkka de bayitil muxaddas moo doonoon wujjam بيت المقدس فجلنا مكة موجل من مكة يت بس بو فجل سما دك بيدي توبا موجل من توبا تبس بو جل بعدين دي توك دو تون فجل تخيول أدين أكوي الله غير يب دانا دك توبا torxoreesi ak adunaan sirin bamba defar bii daani ak soodaan muhammadu rasulillah yi moo yoroon Tayba yaraale Makka Serigne Bamba yor Touba yaraale Mbakke Muhammadu Rasulillahi moo rañaane Makka jëm Madina Serigne Bamba rañaane Makka jëm ca diine Muhammadu Rasulillahi war naa bu rafetlu asamaan kaan ay at di far ay bakkan Serigne Bamba jihaat ay at jihaati bakkan Muhammadu Rasulillahi Muhammadu Rasulillahi bi ñu ciy yegg ba dëpp loo fi ñaan yàlla waa ji am ko ci lu dul sikk nag Touba ca la bokk lépp loo xam ne dëkk bi aajow woon na ko sëriñ bi ñaan na ko ba yàlla may ko ko boobu demagul ci géej gi Ousseynou ñaan na ko lépp lépp ci dëkk bi aajowoo ba àgg ci wax ne wajaxal ilaahi maktani tuuba abat misla asmaayi abdillahi xayru man abat loolu mooy la mu ne yow yàlla de bu na nga jël dëkk bii di tuuba nga def ko noonu ci darajey yonent yàlla di tudd Abdullahi ba faw مثل اسمها بجاه خير من أبد وسلي لي خلي بخلقه يا ربي والتكفني آسى جميع العالمين والتكفيهم آسى يا رب الأمين